alhamdulilah nañ sant yàlla bu baax bi ñu suñu borom boole Sëriñ Tuubaa muy cër bu ma dëkk tey kaw kaw suufa kaw adduna alaxira nañ sant bu baax a baax a baax nag sant Sëriñ Tuubaa rek sant Sëriñ Tuubaa xasida gi mooy xasida ak Sëriñ Tuubaa gi tudd faqad jaakum bashirun faqad jaakum bashirun nag aw laay la ci laaya alxuraan suuratul maida mu suñu borom di wax ne faqad jaakum basirun wa nasirun ala wa ala kulli a qadir moom la tënkee xasida gi mu doon fukki xaraf ak ñaar xasida doon fukki bayit ak ñaar sunu borom da doon wax waa ahlul kitaab rek na ñun yàlla wàcce nañ ci yéen ab yonentu balaa ngeen di wax ne yonent dikkulul leen yonent buy bégle di leen xupp wàccee nañ ci yéen ab yonentu mu dikkal leen di leen bégal waaye nag di leen xupp ndax diggante yonent yàlla Isaa ak diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën na juróom benn téeméeraat ak lu teg diggante boobee ñi fi faatu ñëpp kenn du leen toppee ndax ñoom am nañ lay ndax yàlla yónniwutoon ca ñoom ab yonentu kon ñoom aljana lañ jëm moo tax suñu borom ne yaa ahlal kitaabi qad jaakum rasuluna yubayinu lakum ala fadratin fatratin mina rasuli an taqulu ma jaana min basirin wala nasirin yéen kat a ah, faqad jaakum basirun kon nag dikkal na leen aji bégle te mu yonente bi wa nasirun tey aji xuppe ndax wala ala kulli seen xadirun kon fatara mooy yonente bu dem bala yonente muy doggante yonente bu dem balaa yonente di dikkaat loolu mooy fatara diggante yonente yàlla Iisaa nag ak diggante yonente bi dafa xaw a yàgg moo tax waaye nag diggante yonente yàlla Muusa ak Iisaa boobu moom sunu borom dootul wàccaat beneen téere ndax booy xool bi fi Moussa baye ko ba Insa di ñëw ñoom ñëpp la ñuy attewoo mooy ci téere Moussa bi rek waaye nag diggante Insa ak ak yonent bi sallallahu alayhi diggante boobu kenn wàccut woon téere waaye nag kenn yónnuñ foon kenn moo tax kon ñoom am nañu aw lay léegi ahlul kitaab lay wax na nag ah bu ngeen jaamuwul yàlla itam de balaa ngeen di wax na kenn dikkul leen di leen waar ah faqat jaakum basirun dikkal na leen ab yonentu moo tax sëñ bi ne maa ngi tàmbali sama xasida gi ci tur yàlla arrahmaani buur bay xéewalaa bépp mindeef ci àdduna arrahim buur bay ajëram koo sob ci àlaxira wasala mi maa ngi tàmbalee xasida gi ci tur yàlla nga xam ne mooy kii xéewalaa kon bépp mindeef ci àdduna tey ajëram koo sob ci àlaxira yow yàlla maa ngi lay ñaan nga julli ci kaw kii nga xam ne mooy sunu sang bi turo mooy muhammad waaye nag na nga dolli wóolu moom jëm yonente bi salaay ci kawam mu ne nag jaa akum basirun nasaraan si lay waxat ak képp ku bëgg a baax koo xam ne bu yowmal xiyaami bëgg nga tabbi ci aljana yi kon nangu nangu laa bii rek bi ndax yonent bi salaay sam dafa dikk ngir lan faj ñi moo tax yonent yi da ngay jàng alxuraan wala xada arsal naa loo ngay dégg waaye ñun nag yonent bii ñu dikkal moo tax yàlla ne faqat ca dëgg-dëgg jaakum dikkal na leen basirun aji béegle ji am na laaj nag faqat jaakum basirun wa nasirun la waaye sëñ Tuubaa lam ci soxla rek mooy basirun gi kon fa tabaarakallaahu xasida gi day dafa jëm rek ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wane ji nga xam ne moom la gën a kawee mboolem ñi nga xam ne ay yonent lañ waxuma la ñeneen nag ak mboolem ñi nga xam ne yàlla da ko yëkkati maanaam nu mu tiimee mboolem biddeef fi Sëñ Tuubaa dana ko wax ci biir xasaayit gi kon xasida gi mën wax ne rek bayit bu ci ne rek mën nga ne xasida ak boppam la boo koy xool bayit bu ci ne rek boo ko xoolee ba ci biir xasida ak boppam la ndax bayit bu ci ne am dana junj rañaan ak yonent bi salaay salaam dana junj maanaam ni nga xamee ne ay mucjisaatam noonu la laqee mucjisaat yëpp waaye ni nga xamee ne alquran ji nga xam ne mooy saat bi gën a kawe noonu la laqee mboolem téere yi nga xam ne moom la ñu wàccoon ca jamono yu njëkk ya ci yonent ya loolu itam dana fiiñ ci biir xasaay gi nga xam ne mooy moom. kon bu ko defee dañ koy dawa rek mu ne faaqa kawe na sayiduna sunu sang bi ahmadu ahmad kawe na jamihal anbiya mboolem anbiya uy mooy ñu ñu solo te leen di yónni wa rusuli ak mboolem yonent yi mooy ñu ñu solo jot leen di yónni hibbil mursili mooy soppeb yonent yi moom yonent bi salaay salaam mu ne yonent bi kawe na mboolem anbiya ak rusul yëpp yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi turam mooy ahmad waaye mooy soppeek yonent yi ndax waxoon na ko ci geneen xasida darajatul muxtaari hibbil mursali bi hantilaa u darajaati rusuli nee na daraja yonent bi salaay salaam mi nga xam ne mooy soppeb nee na ci darajaam jooju mboolem yonent yi ci lañ kawee seen daraja yëpp ci daraja yonent bi ci lañ kawee kon loolu tagg gënul ko kawee bi ihtilaa u bihaa ci darajaam ihtilaa u ci la kawee darajaati rusuli daraja yonent yëpp moo tax mu ne faaxa kawe na jamihal anbiya u mboolem anbiya u wa rusuli ak yonent yi sayduna sunu sang bi moo leen kawe ahmadu turam mooy muhammad waaye hibil mursali mooy soppeb yonent yëpp xaddama ahmada alal kiraami musrin bihi li kulli bi ixtiraami mu ne xaddama jiitu na mooy dañ koo jiital ahmada ahmad alal kiraami ci kaw way tedd ña musirin mbir mu ñëw woy gaaw li kulli ñeel képp ci ñoom bi ixtiraami ànd ko ma jox ko ma bii ci yonent bi salaay salaam lii bayit bi mi ngi dund ci rañ mu ngi junji bi nga xam ne suñu borom rañaanee na ko mu yeg asamaani juróom-ñaar moo tolloog ca mawaahibu fa nga fa nga xam ne moom lay sëñ bi dox na xat-xadamoohu iswaajohoohu bi mu yéegee e, di dugg asamaan benneel ba ñaareel ba ñetteel ba ñeenteel yonent ba mu fa fekk kenn ku nekk mooy jiital nañ ko bi nga xamee ne yonent bi jublu na leen rek lañ ko jiital jox ko ma di ko teral tabarika la ngir kontaan ci di ko yaatal di ko wax marhaban di ko jàppandal tabarika la ngir bég ci commencé koo commencé koo yaatal moo tax suñ tubaa ne xadama jiitu na ahmad ahmad alal kiraami ci way tedde ñi muy yonent yam fekk ci asamaani juróom-ñaari jiital nañ ko tabarika la musirin mbir mu ñëwee gaaw ñoom yonent yi li kulin ñeel képp te ñoom bi ixtiraame ànd ko jox xorma bi ci yonent bi salaay salaam mu ne darajatul abdi rasuli ahmada sayaratil axyaara quran humada mu ne darajatul abdi darajaay jaam bii di yonent bi arasolu kii nga xam ne mooy ndaw li yàlla yónni li ahmada tura mooy ahmad mu ne darajaam zayarati jël na al axyaara tànneef ya xuran ñu doon ay sang xommada yoo xam ne santees nañ leen mu ne darajaay yonent bi nga xam ne mooy jaam bi yàlla yónni waaye nag ba noppi nangu ak njaamam mooy ndaw li nga xam ne yàlla ko yónni na ko yaa ayyuha rasulu balix ma unsila ilayka min rabbika wa in lam tafal ma balaxta risalaati waaye turam mooy ahmad benn yoon la ñëw ci alxuraan nee na darajaam ci la sang yëpp doone ay sang waaye yàlla sant seen ak sang yooyu ñu doon ba ko yàlla santee ña ngi ko amee ci darajaay yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne sayara sayarati mujjël na moom darajaam ja moom yonente bi al axyaara tànneef ya xuran ñu doon ay sang yoo xam ne fu mu daa eh, santees nañ leen ñoom ñëpp tabarkalla loolu ñu ngi ko amee ci darajaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jaada nabi yawma alastu bi jawaab lil qurri fal kullu ajaaba bi sawaab mu ne jaada tabe na anabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tabe lil qurri ñihal sang ya te muy ya yow ma ca bis ba nga xam ne alastu yàlla wax na ne alastu bi rabbikum ndax nekkuma di seen borom baroo yëpp ne balaa ah kay roo yëpp seede woon nañ loolu moo xam ña nga xam ne dañ koo wax te sañatu bañ la moo xam ñi nga xam ne dañ koo wax ci cooba rek ci ci seen cooba rek ngeen jëfee digli ga ak kum ca mën a doon rek nee na sang ya bu ñu waxee balaa ñoom ñëpp yonent bi sallallahu alayhi moo leen may ak tontu ndax yonent bi moo njëkk wax balaa yeneen yonent yi topp ca yeneen yi topp ca noonu lañ ko toppantee ba ci xutbu ya abdal yi ba ci saalihoona ba ci al ulama wu ñu baax ñëpp tabaraka la dal di cee topp noonu lañ ko toppantee nga xam ne nii yàlla yónnee yonent ya njëkk yónni aadama teg ci noo ba ibrahima ba moussa noonu lañ ko njëkk woon a waxanteeg ca alamul moo tax mu toppalantee ko nii yónnee leen nii moo tax mu ne jaada tabe na annabi yonent bi lil xuri ñeel sang ya yonent yëpp moo leen may yow ma ca bis ba nga xam ne alastu suñu borom wax na ne ndax nekkuma di seen borom yonent bi moo leen may bi jawaab ci ay tont ñoom ñëpp bu ñu waxee balaa yonent bi leen ko may moo tax mu ne fëlku la képp ci ñoom ajaaba wuyu nañ ko rek bi sawaab ci njub wax nañ ne bu ñu wàccee danañ woo seen nit ña teg leen ci yoonu siraatal mustaqim te loolee ña leen jot a gëm itam tabaarika la ñoom ñëpp ndax minal mu'miniina rijaalun sadaqoo maa ahadullaaha alayhi fa minhum man xadaa nax boobu wa minhum man yentasiru wa ma badaloo tabdilan taalamul arwaa la yàlla waxoon am na ñoo xam ne bi ñu wàcc ci suuf itam kóolër googu euh, dañ ko sàmm ba noppi tabaarkalla am na ñoo xam ne a rey leen ci na dem nañ xare waaye sonnuñee dee waaye ñi ngi muñu di ko waaye duñ mos a soppi ndigal loolu nga xam ne yàlla moo leen ko digaloon ñu wàcc ci suuf tabaarkalla ñoom ñëpp danañu jëfe ndigal loolu moo tax mu ne jaada tabe annabi yonent bi salaay salaam tabe na fa mooy may na fa muy eh, sang yëpp mu yonent yëpp bi jawaab ñi tontu ne balaa fëlku la képp ca sang ya ajaabu wuyu na bi ja bi sawaab ci li nga xam ne mooy ak njub te mooy bu ñu wàccee yow yàlla danañ la jaamu waaye ñi nga xam ne woon nañ leen itam ñu tegee ci yoon siraatal mustaqim danañ leen xëcc jëmee ci yow mu ne ahsana kulla walidin wa walida ahmaduna la si xolaahu xaalida mu ne ahjasa lott na mooy tëli na mooy lu kenn mënut kulla walidin képp wa wulida ak koo xam ne jur jurees nañ ko ahmaduna maanaam lottu na képp kuy jur ak ku ñu jur yëpp muy jur ku mel ni ahmaduna sunu ahmad mi allasi mi nga xam ne xaalida aji bel la xonlaahu kawem ga mu ne képp kuy jur ak ku mën a doon ak koo xam ne jur nañ ko ndax ñaar rek am koo xam ne day jur wala ñu jur ko nee na képp kuy jur wala ñu jur ko nag maanaam lott na di jur ku mel ni yonente bi salaay salaam waxoon na ko ci mafaatul bisri alal la ci sakkalu nisaa maa wulidat ku mel ni yonente bi ku niroog moom sax maanaam jigéen jurut ko kon loolu taggu féetuwut kaw moo tax mu ne onja sa tëli na mooy lott na di jur ku la waalidin képp kuy jur wa wulida ak koo xam ne jurees na ko ahmadu naa ku mel ni sunu ahmad mi àll si mi nga xam ne xaalida aji bellon laaw kawem ga boo gisee nag ma ne kulla waalidin wa wulida loolu ci njàngit mi la waaye booy jàng-jàng benn benn bu la neexee mën ngaa jàng kulla waalidin wa waalida waaye nag ah, man dama koy jàngee rek kulla waalidin wa wulida mboolem ndax boo ne waalidin mooy koo xam ne day jur boo ne wulida mooy koo xam ne dañ ko jur kon xëy na loolu itam tabarikala ngeen bàyyi ci xel bu baax ci ñi nga xam ne ñooy bind xasaayid yi ndax waalidin lañ waroon a def ak ba wulida waaye ñaar yëpp dañ leen def waalidin wa waalida waaye kon man ngeen di def rek anjasa kulla waalidin wa wulida muy anjasa lott na di jur kulla waalidin képp kuy jur wa wulida ak koo xam ne jurees na ko muy jur ahmaduna ku mel ni sunu ahmad mi àll ci ahmad mi nga xam ne alida aji bel la aji sax la dak xoon laaw ga xam ne kawem gi day bil rek di sax fa tabarakallah ayaatu ahmada hawat ayaati man mada wa man yaati wa faaqat saa saman mu ne ayaatu ahmada ay keemaanu ahmad te mooy ay muxjisaatam hawat laq na ñoom ay saatam laq na ayaati man ay keemaanu gaañ nga xam ne madda woyoon nañ wa man yaati ak ñay dikk ñëpp wa faaqat ta kawe na sax saa saman ji jamono yëpp tabarka la mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay mujisaatam yëpp dafa mel ni yonent yi yi nga xam ne ñoo fi jiitoon di ko feeñal yëpp dañ koo àbbiwoon ci moom waaye yëpp moo leen moom moo leen làq ba ñi nga xam ne sax dañuy dikku ci ay wëlliyu di feeñal ay xarbaax wala ay yonentu yëpp tabaarikalla bu mos a feeñ rek moo xam ci la woy ay yonentu yoo xam ne dañoo feeñoon waaye moo xam ay awliya yu feeñal ay xarbaax boo leen ku mos a def keemaan rek moo xam ca la wëy wala ci jamono jii wala ci luy ñëw maanaam kemaan gu nit moso fii ñon rek maanaam ma nga bee ko ci keemaanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa mel ne danga ko ko abboon moo tamit ne ayaatu ahmada ay keemaanu ahmad xawat làq na ayaatu man kemaanu gaa ñi nga xam ne ma daw wëyoo nan wa man yaati ak ñii dikk ñëpp wa faaxat kawe na sax saa saman ji jamono mu ne ba tey kitaabuhu kutubu rusulil munsile xawaa wajaada bil xiraa wa nusuli mu ne kitaabuhu téeram bii di alquran xawaa làq na kutuba rusulil munsili téere yi nga xam ne yàlla wàccoo na ko ci yonent yi wajaada ta tabe nañu bil xiraa bernde ga wa nusuli ak ganal ga mu ne téeram bii yi nga xam ne yàlla moo ko wàcc ci moom nee na mboolem téere yëpp seen mbóot seen secret ak lu mën a doon rek suñu borom dëxëñ na ko ci giir alquran nga xam ne alquran mooy jawaami alkalaam mooy li dajale mboolem wax yi téere yi nga xam ne yàlla wàcc na ko ñu koy tënkee sama du yëpp booy xool seen secret seen secret yëpp yàlla da koy doxan ci biir alquran ba noppi alquran leneen loo xam ne nekk na ci nekk nekkutoon ci yeneen téere yi te alquran ngay jàng mu xamal la yeneen xeet yi fi jiitoon ñëpp seen xisa seen histoire na mu demee yëpp alquran moo ñu ko xamal kon xam nga ne téere boobu tabaarikalla lépp mi ngi dajee ci biir moo tax mu ne kitaabuhu téeram ba te muy alquran moom jëm yonente ba nee na xawaa làq na kut kutuba rasulil sili téere yi nga xam ne yàlla moo ko wàccoon ci yonent yi wa jaatata tabe na nanu moom téere bi bil xiraa ci bernde ga wa nusuli ak ganal ga ndax alxuraan moo ñi tabe xeeti bernde waaye nag moo ñi tabe itam li nga xam mooy ganal ga te moo ñi jàngal aljana buñ fa duggee yàlla nu muy berdale ay jaamam nam leen di terale ak ganal ga nam leen di ganalee loolu yëpp alxuraan moo ñu ko jàngal fa tabaarakallahu nusulan min xafuurin raximin kon moo ñu jàngal yàlla day berndal ay jaamam ñi nga xam ne ñoo ko doon topp gëm ko fii ci àdduna ñooñu buñ dee yàlla moo leen di wuutu ci seen gannaaw taxawaal taxawee leen ci seen njaboot waaye bu yowmal qiyaam itam moo leen di berndeel wàcc leen ci wàccuwaay bi nga xam ne tabaarkalla yàlla nañ ci yàlla boole. muhammadun muhammad alayhi yàlla na dolli nekk ci moom. afdalu salaam gën ci dolli góolu muxaddaman ku ñu jiital la bi xayri fixlin ci ngën ci jëf wa kalaam ak ngën ci wax nee na yonente bi salaay salaam yàlla na dolli nekk ci moom gën ci dolli góolu yonent yi nga xam ne mooy ku yàlla jiital ci bépp wax wax ji ca gën yàlla moo ko ci jiital waaye bépp jëf itam itam jëf ja ca gën yàlla mooy ku ci yàlla mooy ki ko ci jiital kon muqaddaman ko ñu jiital la bi xayri fii leen ci ngën ci jëf wa kalaam ak ngën ci wax mu ne bidaayatul maahi tàmbaliwaayu aji farkiife ji te muy yonent bi nihaayatul xiyaar mooy yemukaayu tànneef ya faddalahoo gën gi nga xam ne moom la gën alal waraat ci kaw mbindéef yi nee ne sool ixtiyaar borom ak jamtalu la faddaluhoo ak gënam soo ixtiyaar borom ak jamtu la jamtalu la alal waraat ci kaw mbindéef yi nee ne booy xool yonente yëpp ak nit ñu baax ñëpp buñ doon natt seen dayoog jaamu yàlla ak seen martaba ak seen daraja ñoom ñëpp ay sang lañ am nañ daraja am nañ xorma waaye boo doon xiyaas di natt ne masalan ñoom de seen daraja mu ngi yem dëkkëb sangam wala barab sangam fañ yem foofu la daraja yonente bi salaay salaam commencé foofu yëkkati ku jëm kaw allahu akbar kon tag yi yaa lahu min adibin kon waxtu di lu mel nii ci tagg yonente bi salaay salaam ndax da koy settee ci jëmi mi defi di ko yéegal fa yàlla borom tabaraka taala moo tax ne bidayatul maa yi tàmbaliwaayub aji far kiifar ji te muy yonente bi maanaam fi darajam tàmbale nihayatul xiyaar mooy yemukaayu tànneef ya fañ jàpp ne seen daraja foofu la yem foofu la yonente bi tàmbalee mu ne faddalohoo gën gi nga xam ne moom la gën alal wara ci kaw mbindeef yi sool ixtiyaar borom ak jamtalo maanaam yonent bi ngëneel li nga xam ne moom la gënee mbindeef yi tabaaraka dafa jamtalu ci kaw mbindeef yi daa di ne sahida seede na kulla sahidin bépp sang yuxtaaru ne tànnees na ko waaye bi anna ahmada naka ahmad te mooy sayidina muhammad huwa mu almuxtaar mooy ku ñu tànn ke yonent yëpp seede nañ ne ñoom ñëpp ay yuxtaar lañ waaye yonent bi tuxtaar la tuxtaar mooy koo xam ne dañoo fekk ñi gën ñi tànn ko ca ñoom nag ay yuxtaar lañ yàlla bi mu sàkkee mbindeef yëpp maanaam ñoom yuxtaar lañ tudd ndax suñu borom dane wa rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yuxtaaru yuxtaaru mooy ki yàlla yàlla bi mu sàkkee mbindeef yëpp da caa tànn ñoo xam ne ñii ñoo gën ci mbindeef yëpp te ñoom ñoo doon yonent yi waaye gannaaw si nag dafa dafa settee yonent yàlla ma mu doon tuxtaar nga xam ne yàlla mboolem la muy tànn la ko ci gënal nga xam ne yàlla bindu dara ngir moom ngir lan yonent bi rek la bind ngir moom waaye lépp lu mu bindati rek da ko bind ngir terale ko jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci xaaras ak kursi yi sax da ko bind terale ko yonent sallallahu alayhi wasallam moo tax kon yonent yëpp sang yëpp ñoom yuxtaar lañ waaye jëm yonent bi tuxtaar la tabarke la loolu nag Sëñ Tuubaa moo la koy teqantalal ci wëy yi muy wëy li kulli min jumlatil axyaari martabatan waaye laakinna ma ahmada al muxtaaru muxtaaru mu ne sahida seede na ku la sayidin bépp sanganu yuxtaaru tànnees na ko waaye bi anna ahmada naka yonente yàlla muhammad te mooy ahmad ko mu almuxtaaru mooy ku ñu tànn nee na yanqaadu lil muxtaari ma siwaahu farra lahu fadlan wa qad yan yanqaadu dana wamutug wamutug coobarehu lil muxtaari ñeel ka ñu tànn ki maa la nga xam ne siwaahu kudul moom fara dawoon na lahoo jëm ca fadlan te mbir moom mu nekk ak ngëneel waqat xawaawu te làqu na ko moom yonente bi nee mboolem loo xam ne nit ñi ci ay yonente mboolem ku baax rek da di ci jëm loolee moo daw jëm ci yonent bi salaay salaam xam nga nit ñi moom mën nañu daw di wuti lu baax lu ne waaye lu baax lu ne moom ma ngi ci yonent loolu mooy raamal wara nay la fadlin musrihee na lahoo wal fadlu inda rasulillahi qaraaru nee na mbindeef yëpp raamal wara doon na sàkku mbindeef yëpp ngir lan am ngëneel fu ne ñi njëkkante bis bu ne kenn ku nekk ak fa ngay jaar ndek ngëneel moom ku jaarut ci bi sunu borom jóor na ko ci kaw yonent bi salaay salaam ku fa jaarut doo ko am kooku mooy sëñ Tuubaa moo tax na mu ne yan xaadu dana wamatu wamatu coobarewu lil muxtaari ñeel ka ñu tànn ka maa la xam ne lay womatu maa mooy la xam ne si waaxu ku dut yonent bi fara dawoon na la ko jëm ca fat lan mbir moom mu nekk ak ngëneel nag waxat xawaatu laqatu ko mu yonent bi maanaam lii daw jëm ci yonent bi mooy li nga xam ne ku dut yonent bi dawoon na di ko sàkko ji waaye loolee moo daw jëm ci yonent bi sallallahu alayhi moom rasuluna sunu yonent bi faaqa kawe na jami a rusuli mboolem yonent yi wala anbiya bi habibul mooy soppe bi yonent bi te muy yonent bi salaay salaam kawe na mboolem yonent yi kawe na mboolem anbiya yi mooy ñi nga xam ne dañ leen da jot a solo waaye yónni wuñu bi salaay salaam mooy soppe bi yonent yëpp mboolem ku yàlla yónni rek bi salaam mooy sopp soppe mu ni subhaana rabbika tur na ma sella góor bi rabbi moom mi xam ne mooy borom sedd nga xamaa yi si foon walis lépp loo xam ne dañ ñu ko ci ay doom ak caaju wasalaamun jàmm alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ñu ñu yónni ña tagg wi tagg wu kawe la woo xam ne li mu làmboo buñ ko doon nettali day yàgg lool nga xam ne sax booy xool turu suñu borom ñëwut ci maanaam tagg na yonent bi salaay salaam ba mu jeex te indiwut jëmmi turu suñu borom tabaaraka taala tudd na yonent bi ahmad rek ak al abdu ak rasulu tabaarikalla tuddeewaat ko yeneen tur ci biir xasaay di muy tur yoo xam ne lépp lépp da koy tagg rek ngir wane jëmmi yonent bi salaay salaam ci wàllu melo ak jukko ni mu kawee mboolem ñi nga xam ne suñu borom fii ñël na leen ci jamono waaye mboolem keemaan yi ñu feeñal ak i ay mujisaat yëpp dañoo demoon ci yonente bi xàbb ko ko rek kon mbokk yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi ta wa barakaatuhu kenn doon ànd ak seen xasidi nga xam ne mooy faxat jaakum basirun mooy seen ndongal daara ibrahima sekk kàddu gi bee ko fii ci Tuubaa Kawlax in uridu illa islam matatatu wa ma tawfiqi illa billah ali tawkatu ilay unib subhanaka la ilma lana illa